li yéene kay bi docteur Falla Paye dib dentiste moo pikir poson ñetti doomam ñu faatu mulbatiku xaru ñetti doom yee yéene bi nee nañu kenn ki Mohamed Paye la tudd amoon fukkeet ak ñett keneen ki Ndey Faatu Paye fukkeet ak benn ki ci des Thialis Paye amoon juróom-ñetti at l'observateur nañu ndaw si mu amal doom yi moom waa ji ñu naan ko Ndey Awa Diagne dib gynécologue ñoom ñaar ci instance de divorce la tolloon bu waa ji bëggee gis doom yi ndaw si da ko ko doon xañ bu waxee mu ne ko dañuy jàng seeni leçon ba keroog docteur Paye teg ko xel ne ko dama bëgg ànd dem sali week-end ji ndaw si jël yi jox ko mu yóbbu leen Sacré Cœur xale bu ca nekk mu pikiir la posen nga faatu mu tëral la dugg ci biir biróom tëju fa rey boppam ndaw si doon nettuwaaye barab ba di femme de ba moo ca yem yéenekaay bi di L'Observateur nañu waaye moom docteur Falla Paye laata mu doon def jëye ji mu def bind na ab lettre bu gudd bàyyi fi ca lettre ba nettali na ca fukkeet ak juróom yi mu sëy ak ndaw si te lépp di souffrance ci moom dem na bay xamle ca lettre ba ne bangi bangi jabar ji jiital famim ginnaawal ko moom muy jëkkëram taxoon na moom ndaw si mu xañ ko boppam ci diirub weeru yàlla bu teg ñaar la seen kay nañu jëyee ju réy ca Sacré Cœur démb ci dimanche ji médecin la pay moo rey ñetti doomam ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor ba noppi na xaruteg ci divorce gi mu jëmoon ak jabaram bokk na ci li ko naqari vox populi nañu moom docteur Falla Paye wax na ci lettre bi mu bind bàyyi fi ne sëy bu mbëggeel amul ak njaboot waru cee sosu te loolu moo am Ndeye Awa musoo maa bëgg roue de nga ma jàppe libération nañu ci yi mu bind bàyyi fi moom docteur Paye am na fu mu waxee ne li mu def réccuwu ci dara te bu ko kenn gisé force moom ak jabaram ñuy yéeg ak a wàcc ci la tribunal jëlee xale yi dénk leen seen yaay moo amee woon garde ba Le Quotidien Sud Quotidien ak L'Info ku ci nekk ci ñoom xëy na appel xibaar bi ci xët mu njëkk ñoo bokk nu ñu ko bindee mu di docteur Falla Paye faat na ñetti doomam faat boppam teg ci ñu teg tiis yu fi suuf te wax ci yeneen yu yéene kay xëye bokk na ci wàllu politique ak Sud Quotidien mi ñu wax ne waaye yeewi askan wi yeewu nañu ba dëgër taxaw ci bañ lank kandaare seen liste yi rejeté ci diiwaan yu bari ci réew mi Déthié Fall mandataire national bu yeewi askan wi dañuy wax ne xel xalaatul lu ñu koy bàyyi muy jàll Khalifa Ababacar Sall ne ko ci wet ga bu dee dëgg rek la bëgg a dégg mbir yi luusa nga ca ñoom waaye askan yu suddu nee nañu lépp nag préfet yeeg sous préfet yi la ko jëñ suur soi nañu bu ñu waxee ci kaa yi leen tax di wax bu nuppi nañu xam ne am na yeneen ñetti kaa yu leen di xaar ndax ca Kolda seen liste ba nañu ko ca Sali Keñe rejeté ko ca Julakolon rejeté ko ca Tankanto Escale Le Quotidien nañu fi ñu nekk ni kay ñoom waaye yeewi maire bu futt la ñuy sàkku ci askan wi ñu mobilisé wu taxawu Barthélémy Dias mi ñu woolu ca yoon fukki fan ci weeru novembre ko nañu convocation bu Barthélémy Dias ak li ñu ko bëgg a méngalee candidature am ca bopp mairie bu Ndakaaru procureur général di Lansana Diabe weddi na ko ba mu set wecc dàq na wax ca ba wax la cay dëgg ci communiqué bu mu def ci la leerale ne Barthélémy Dias bi muy xam ne fukki fan ci weeru ca la war a wuy ji yoon booba doonagul candidat ca mairie bu xamoon na ko depuis le 7 juillet 2021 journal l'info mel ne ku naan ko defati ndax waa Benno seen kaw bu baax a baax ba mu saf sàpp mu di li ñu waxal nguur gi ci seen liste yi ñu rejeté di li ñuy wax ci cas bu Barthélemy Diaz kàdduy Abdoulaye Diouf Sarr ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax ne maa ngi woo fukki commune ak juróom-ñeent yi nekk ci Ndakaaru gi yépp ñu taxaw ñàkkante ko ndax duñu nangu ay nit bëgg ñoo fatt tere justice bi wala administration bi di def liggéeyam loolee moom duñu ko fi nangu na leer nay leer di waa kër Diop si convergence patriotique pour la justice gi yóotu maire bu Tivaouane la tribune nee am na meneen mbër mu mag mu leen fekk si ngir jàppale leen góor gi Massamba Boy la membre fondateur bu parti Pastef ca ànd ji ak Demba Diop si ci local yi déwén yi ren ji sunu lamb mi ngi ñuy xamal ne Sénégal waneti na boppam ci tournoi Ligue CEDEAO bi ñu doon def ci Ndakaaru Sénégal moo gagné final bi réewum Niger la ko doon xëccool